après man damay dox suma damay dox suma dox hmm. tel que l'esprit que j'ai eu depuis que je suis rentré de la France hmm. monte mes affaires je vais tout doucement j'investis tout doucement et puis sans tambour ni trompette man personnellement quand je dis euh, Macky Sall suma xarit la mais musuma may dara mais dama ne mais man maa ko may parce que quand il était candidat en mais suma buntu bureau dama leen koy wax et je le dis ici je suis des noms suma buntu bureau dama bu saa yi ba ñaambu ma tey bu toog Abdou leen di fekk ñuy di ma il voulait des affiches du président defal ko lii defal ko lii defal ko lii mais bon. là on euh, vous rend l'ascenseur c'est le. non non non ban ascenseur. waaw parce que tey li nga am. jam li li ma ñaajo. même bu la ko joxul moo ko facilité. mais booy kaay kaay ma waral leen je yow li wokk kër la moo tax c'est facile quand loolu mooy loolu mooy rôle am. cest à lépp. na ci ñëpp jot. waay yow bàyyi bàyyi ma wax ku bokk ku la bàyyi ma man ma mën si jot keneen mënu si jot. ah yow yaa xam fi nga jaar. Eh man fi ma jaar danaa daf may bàyyi ma wax la ko. daf may bàyyi fi ma wax la ko man fi ma jaar c'est pas compliqué man j'ai pas été demandeur de quoi que ce soit man maa dem jël suma dossier je suis allé c'est vrai que il m'a encouragé parce que il m'a reçu pendant deux heures de il m'a encouragé il m'a dit Tandian ça c'est un bon projet il faut le faire pour le Sénégal c'est important d'accord léegi mais euh, euh, ma terminer foofu mm-hmm. mais j'ai pris mon projet je suis parti j'ai fait le tour de toutes les banques au Sénégal finalement ñu may dawloo fii jaar fii fii xëccal fii jàppal fii j'ai pris mon projet je suis allé en Europe xam la banque populaire d'investissement française moo mu financé. bi ñuy à hauteur de deux milliards. ma ne la y a garanti man dama am garanti man dama am dama am garantie man suma patrimoine déjà rek. garantie la ma ne la fii. fii alors euh, fii après y a banque locale sénégalaise qui a pris la balle au bond. ba pare yokkal ma ci un milliard. mu nekk mu nekk trois. avec la possibilité de ramener cet investissement en 2024 à 6 milliards et demi. Parce que tout simplement, c'est un investissement porteur et puis j'ai des contrats potentiels Alors, pour, pour fonctionner par rapport à ça. nous avons juste 7 minutes pour